am ak choix yi nga xam ne moo daal di soxal ki nga xam ne moo di Sonko di sëñ Abdou Lahad Kémane sëñ Abdou Lahad ñu lay nuyu di la ziar bàyyi nga raadu nuyu téléspectateurs yi nga xam ne tam ñoo daal di jàkkaarloo yow 5 TV. salaamaaleykum wa wa barakaatu sëriñ Fallou maa ngi lay ziar bu baax. di ziar sëñ ji

waaw xam nga euh, dossier bi nag. Mm. Euh, li may wax toujours rek mm. mooy. Mm. Euh, képp ko xam ne xam nga ne. yaa ngi topp yoon. wala nga xam dara ci yoon danga xam ne dossier bi jaay doole dëgg-dëgg daf cee nekk. donc ndax jaaxal nañu. waaye nag fi nu ci yàlla féetale nañ ca gën a féete foofa. mooy ñaan. te yàlla moo ne nañ ko ñaan mu may ñu sant ko mu dolli Euh, mu mel ne euh, dese bi man jàppoon naa ne jeex na bi ñu mm. waxee ne daan nañ ko mm. euh, ba teg ko deux cent millions mm. waxaatit ne teg nañ ko deux mois avec sursis moo d'accordul waaye jàppoon naa ne boobu la jeex waaye nit ki doomu aadama li boo bëggee xam naa fekk dëgg-dëgg mooy kii wax ci kaw wax ci suuf Mame Mbaye moom ma wax ne bi mu génnee ci biir Euh, biir palais de la justice mm-hmm. dafa wax ne man de kontaan naa ci sama justice su réew mm-hmm. ndax ni ma yaakaare woon mbir mi noonu lañ ko defee jibile mm-hmm. wax ne am na ndam kon donc tey bu taxawee waxaat ne justice li ñu defaat du dëgg kon danañu jaaxal su fekkonte bi ne la mu la mu waxoon moom wax ne kontaan na wax laaj ndàmpaay ndàmpaay la taxaw moo ñee waat daan ne léegi man contentuma yéen waa société sama sama réew li ngeen àtte woon du dëgg hmm. kon daf ñuy daf ñuy jaaxal hmm. ndax nit doomu aadama war na fexe góorgóor lu baax baax lépp looy wax nanga nga ci xalaat sa diggante ak sa borom bul bañ nit ba tax nga siise ko naka su dul noonu dëgg rek la la yàlla bëgg dëgg itam yàlla moo ko moom keneen moomu ko dëgg it mënut nekk ñaar benn dëgg rek moo mën a nekk hmm. waaw waaw am am na solo moom foofu mu waxee xam nga sëñ Fallou li mu wax mm. tamit dafa am solo mm. li tax mu am solo mooy mm. euh, gis nañ ni euh, boo xoolee après pourquoi appel bi c'est-à-dire loolu la nit ñu bari di laajte question boobu moom mooy pourquoi Mame Mbaye Niang dem li nga xam ne moom mooy tax mu ah, def appel d'accord ko daan c'est-à-dire que dafa woote diffamation c'est-à-dire mm. pour sétal sa der la mm. donc jàpp nañ ne bu fekkente ni yoon daf la jox deug kon yoon sétal na sa der wecc mm. wecc wecc légui nak dafa am leneen lo xam mom mo moo lalu ci biir lo xam c'est purement politique te lolu ñep xam nañ ko mom moy est-ce que nonu jéem fexé fexe ba empêcher li nga xam moy Ousmane Sonko mu dugg ci article 29 mu génn ci article 30 bi dugg ci article 29 baña dem li nga xam mom élection présidentielle je pense que lolu mom moy motivation fi mu toll nii et ku ñu jox 200 millions nga ni bëggo donc amna lo loo Euh, vraiment moom. alors lu mu yaakaar alors euh, sëñ bi. Mhm. gisoon na lu nu mel jëm si condamnation bu Ousmane Sonko. Mhm. gisoon nga ko. luy loolu. Euh, cest à li nga ko daan nii gisoon na ko déjà que ni Sonko dinañ ko daan deux cent millions ak. ñaar donc loolu moom loolu moom tegoon nañ ko bët lu ñu gisoon la. Mhm. xamoon nañu itam mbir mi sax jàppoon nañ ne dana gën a raw lii. xëy na yàlla dogal na ni ñuy làmbutoo dañoo mënta daj. dajaleen të. ñu ngi làmb nag nu ñu man waaye daj moo leen të. ñi ngi lamb luñu man waaye daj mo len te daj moo leen të daj moo leen të mooy. Euh, li bëggal Ousmane Sonko liquide ko présidentiel bi. dina euh. ci wax exactement ma xam dina bok wala du bok mais sans yi seen bëgg-bëgg nan la ñom wa ñom mom Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko ci kaw yoon. moy hmm. mooy yas ci kaw yoon. Hmm. Ousmane Sonko sonal na len sonal bo xamne hmm. sonal gu gu gu dayo bu tol nonu ken musuko gis ci walu politique. ja ja ko ci euh, président Senghor. wàcc jaar ci Abdou Diouf. Hmm. ba ci ab Ablaye Wade mi ba ci Macky Sall mi. Hmm. kenn musta gis lakke wu mel ne Ousmane Sonko nii mu lakke nii kenn musta gis lakke lakken wu ni toll. Hmm. moom yàlla moo ko may li mu li mu am. yàlla nag mooy seet lu ko neex. mu def ko lépp ci nguur suñu borom subhaanahu wa taala ci lay amee. waaye nag li ma lay xamal mooy. yàlla sedd na ko ne incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. du ñu ko mën a lu toll ne talalu tarafatal ayni dëgg rek mooy dëgg tey dëgg yàlla ki ko moom. dëgg mënta nekk ñaar benn dëgg rek moo mën a nekk te incha allah rabbi ci kàttanu yàlla Ousmane Sonko mooy mujj dëgg gi incha allah rabbi ak lu ca mën a xew ak lu mu mën a doon ak lu mu rëy rëy rëy dëgg gi buy jeex ci kawam lay mujj yàlla nag euh, dafa maandu. Hmm. yàlla dafa mën a seetaan. Hmm. waaye nag euh, dañuy gën a ñaan sunu borom. Hmm. sunu borom gën ñoo defal ndam ci li ñuy sàkku ci moom. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy xare ak noon yi noon yi dóor ko ba. mbaxanaam kole ci bopam door ko ba damu bañam booba sun borom subhanahu wa taala mi ngi xol motax yalla liko saf dafa wul sun borom subhanahu wa taala dara safu ko borom euh, li def amu ci xej ji amu ci sen day def ci kaw num num ko neexee di ko def ci kaw coobareem waye nun ñi nga xam yalla ñaan ci sunu borom talal suñu ay loxo rek la yalla. denk ñongi mm. toroxlu ñongi ñaan yalla de maam yi ñu ko war a ñaane ci sellal ñoo ngi ciy ñaan te gëm nañu ne incha allah rabbi ci kàttanu yàlla yàlla dinañu defal ndam incha allahu rabbi lu ma mën a waat la teg ci sama loxo te yàlla dinañu defal ndam incha allah dina leen defal ndam balaa ñu ñëwaat si ji bi mais ñu gis ni euh, leen ni benn appel mhm. jëm si ki na xam ne moo di Sonko alors mhm. appel boobu euh, feeñ na leen si ay gént wala ban gis-gis ne si am ma xam Sénégal dina demaat si tous euh, sous tension yi nga xam ni itam saa suñu wotee Ousmane Sonko dina ko daal di am si loolu exactement lan leen si war a mën a jàpp si boobu dina xam ne moo di appel xam nga appel bi hmm. li ma lay xamal rek mooy hmm. la ci war a xew hmm. mu ci wàllu fitna wala jafe-jafe hmm. foofu la nu suñu borom bi gën a yeeyee pour ñu jóg taxaw ci ndax bariyaa na problème yu wara a am la tax problème yooyu du am hmm. mooy sunu borom subhanahu wa taala daf nuy dimbali ba hmm. ñun la ñuy def mooy lanu man rek mooy ñaan te saa bu ñu toogee ci suñu der trente minutes jàpp une heure de temps lu ñu ca ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala danañu ko may di jafe-jafe yi war am ci saa suñu nee tey dañuy dem pour war a inculter Ousmane Sonko. Hmm. la war rek mooy jóg di ñaan. jàppoon nañ ne ne problème yi du du du garaaw waaye saa bu ñu demee ba gis na day garaaw rek dañuy jóg. instant bi garaaw na. wala waaw xam nga xam nga xam nga situation fi mu toll nii ñun lañ doon def benn. Hmm. junneem la ñuy def. Hmm. benn bu ñu doon def junneem la ñuy def li tax ma wax la loolu mooy gis nañ ne ñii nga xam ne ñoom la ñu dëgmal ñu nekk ci suñu kanam. muy muy ñi nga xam ne ñooy borom ñooy ñoo ñu yër réew mi hmm. ngir ñu éliminer usmaan sonk jaral na leen lu ne hmm. ñun tam li tax ngir Ousmane sonk am ndam jaral nañu lu ne ñaar nag suñu àndee kii suñu mbuum fas yéene dee hmm. ki ja suñu mbuum fas yéene dee bu ñu nee rinkum rek dëgg rek moo fay nekk ci kàttanu yàlla te am nañu yaakaar ne incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ñoom ni ñu bëgg a éliminer Ousmane Sonko ngir 2024 du nekk candidat ñun loolu la ñu ko ngir ñaan ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala 2024 Ousmane Sonko doon président waxuma la mu doon candidat de doon président incha allah ci kàttanu yàlla te incha allah rabi loolu dina am. Euh, te lu nu yàlla lu lu ci yàlla may danañ ko jël lépp luñ ci ñaan may itam danañ ko jël ci kàttanu yàlla. incha allah

ne sax mën na am dañ laa tooñ hmm. naam waaye bu fekkente ni danga ne lii bu ma ko toppee hmm. dana jur aw ay dana tax ay ndaw ñàkk ci seen bakkan dana am ay ndaw yoo xam ne seen i wayjur yoom la ñu yaakaaroon mm. dana leen jàpp tëj ci mm. kase bi mm. nga ni naa ko bàyyi mais ñoom damay jàpp toujours ni xëy na peut-être comme ni ñu koy waxee xëy na ndaw askan wi daf leen askan wi ci boppam dañ leen a desee soxal ni nga xamee ni ñoom noonu lañ leen waroon soxale bu fekkente ne yàlla daf la jox nga nekk kilifa nekk yor ay ndomba tànk xëy na am na yeneen taxawin yoo xam ne moom nga waroon taxawee lu bokk la amaana ni ngay gisee koo xam ni moom bu ne jóg ñu jóg bu nee dem leen ngeen dee ñu dem dee loolu la lool moom mooy li fi ne moom laay wax chaque jour moom la yàlla def donc Sonko moom rek moom mooy taxaw ni damay xeex ndaw ñëpp ni dama ci ànd ak moom. Euh, mm. Idrissa Seck gis nañ ko dana wax ak. dana nag keneen euh, mais <laughs> bu ne woon génn leen kenn du génn. Macky Sall ci boppam bu ne génn leen kenn di génn mm-hmm. donc Sénégal kenn dong la yàlla may fi mu nii bu waxee génn leen nit ñi génn donc kooku itam nag peut-être bu fekkente ne jàpp nga ne dañ laa tooñ kenn ku ci nekk am nga droit dem ci yoon mm-hmm. mais bu nu àttee yoon jox la dëgg mm-hmm. je pense que war nga ko mën a jël et puis tamit ni ñu koy waxee amul benn foo xam ni euh, ci wàllu diffamation tribunaux yëpp hmm. tribunal masul ñu jugé nit ba jox ko intérêt hmm. intérêt wala intérêt et dommage millions millions euh, alors si exactement sëñ bi hmm. sànq waxan ko ko ba ñun a kaw